Macky Sall euh, Malick Gakou ku mën a doon euh, il faut pas qu'on politise le débat mm-hmm. surtout une situation que les politiques en tirent profit mm-hmm. pour mën a ne ni coolaa ngi noonu ña ngay xeex man maa tax ñuy xeex non non ku mën a doon muy Sonko muy Macky Sall muy ku mën a doon mm-hmm. nu ñu bu ñu fi ñu toll nii priorité bi xam nga lan na mooy fexe ba jàmm am mais kii mooy diw man maa ci topp dañ man la ñuy jàppale wala euh, man la ñuy xeex c'est pas que ñi fay manifester dañoo contre Macky Sall c'est pas que ñi fay manifester dañoo ànd ak Sonko wala ñu ànd ak keneen ku mu mën a doon le plus important mooy fi ñu toll nii bu ñu politiser situation boo xam ne su tey nit faatu nañ si. d'accord ñu jeexalee foofu. waaw ak euh, tàggat yaram mi mu ko waxee sànq ci kàllaamay nasaraan euh, Sénégal tey tamit la ñuy daal di am jot seen raaya maanaam seen. drapeau national ñi nga xamante ñoom ñooy équipe nationale U20